corps de contrôle yi nga xam ne rek moo soxal juróomi at yi ñu weesu ginnaaw élection yi boobaak léegi nag askan waa ngi àddu jëmale ca yéenekaay bi ne léegi tey daan ci am lu leer Le Soleil yëglekaay dellu soir ci ndajem conseil des ministres bi nga xam ne rek doon nañ ko amal démb ak dogal yu mag yi nga xam ne rek moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël na ko bokk na ci fësal rapport yi nga xam ne rek moo jëm ci juróomi at yi ñu weesu ñeel Cour des comptes IGE ak lii di OFNAC taxawalit ab bureau d'intelligence et ñu naan ko waaye tamit ab direction des affaires religieuses religieuse yoo xam ne daan ci mën a dugal ñi nga xam ne ay diplômé lañ ci wàllu arab taxawal itam ab autorité de régulation boo xam ne rek mooy càmbar secteur bi ñu dénk wàllu ndox mi juróom ci ay conseil interministériel nag ñu ngi koy waajal ngir feetu tabaski bi ak lu jëm ci wàllu nawet bi campagne agricole lu jëm ci wàllu examen concours pèlerinage ci wàllu màkk loolee lépp jamono ji nag teg nañu ko mu di ay jéego enquête jéglekaay dellu soir ci nguur gu yees gi na président Diomaye ma ngay lëñ ba doxalinu ma ngay sàkku ñu daal di publier nag rapport yi nga xam ne moo ci tukkee la mu bëgg rek itam bokk nañu daal di auditer nag ci ni mu gën a gaawee contrat yi nga xam ne rek moo dox diggante état bu Sénégal ak société bii di Sen'Eau ma ngay sàkku moom njiiti réew mi nag ñu daal di leeral dossier yi nga xam ne rek moo jëm ci chantier naval bu Dakar Nav ministère bu nekk nag jox na ko juróom-ñetti fan ngir mu daal di taxawal ab plan sectoriel l'observateur dellu soit ci dicté li nga xam ne rek moo bàyyeekoo ci conseil des ministres tukkee ci njiitu réew mi yéene kaay bi ne jomaay ma ngay fuyee mag yi bi muy sàkku nag ñu lépp loo xam ne rek moo jëm ci contrat yi nga xam ne rek moo soxal SONES ak SEN'EAU waaye fësal itam nag rapport yi nga xam ne moo jëm ci corps de contrôle yu juróomi at yu ñu weesu Vox Populi nag dellu soir ci ñaari conseil des ministres yi xam ne rek troisième alternance bi na ko yéenekaay bi ne jomaay bàyyiwul dara ma ngay lañ bët fépp waaye audit yi nga xam ne rek lancé na ko ngir feeñal mbóot yi woon ci régime bu Macky Sall njiitu réew mi nag sàkku nañu daal di fësal nag rapport yi nga xam ne rek moo tukkee ci atum 2019 2020 2021 2022 ba 2023 Touba leeral leneen loo xam ne rek jëm na ci concession bu chantier naval bu Dakar Nav laata juin 2024 moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye juróomi fan ci weeru mai nag bëgg nañu daal di finaliser nag projet de loi bi nga xam ne rek dafa jëm ci aar képp kuy lanceur d'alerte nag sàkku na ci limaanu joriñ bu Sénégal ngir mu daal di saytu nag lépp lu jëm ci wàllu sécurité yu données yi nga xam ne rek moo ñeel secteur public bi ca présidence ak ca primature naka noonu ci ministère yi Ousmane Sonko ci boppam nag fi mu toll nii mi ngi waajal ab projet décret boo xam ne rek dafa jëm ci candidature yi nga xam ne rek ñoom ñoo war a jiite lu jëm ci wàllu fonction publique yeeg parapublique yi le témoin ne fi mu toll nii kay Bassirou Diomaye Diakhar fay nag ma ngay wane ay markam l'info yëglekaay di ko feelu xëy bind ci xëtam bu njëkk ni la machine samba la la yëglekaay ne publication de rapports des corps de contrôle kay fi mu toll nii nag président Bassirou Diomaye Faye ma ngay fësal mbóot yi nga xam ne rek moom la ñu régime bi fi nekkoon bàyyee libération dellu siwaat ci ñaari ndajeem conseil des ministres yi nga xam ne rek amal nañ ko ci njiitalu président Diomaye Faye yéenekaay bi dippeeko sale temps pour la tribune yëglekaay dellu suwaat ci 94 milliards Petrotim ak privation Bukin Fat Palace Sécuriport yéenekaay bi samp laaj ne kañ am lu leer ci yile dossier addu jëmale ci wàllu tàggat yaram réew mi sport dellu suwaat ci Ligue des champions yéenekaay bi ne Real Madrid nag daal dinay duma ñii di waa Manchester City ci téeroo biir yéenekaay bi di stade di ko feelu ne Real éliminé na nag kii di Manchester City daal di fas yéene jàkkaarloog waa Bayern sunu lamb xëy tey yéen kaay bi ne ndax lu ni mel nag du tiital kii di Balla Gaye 2 enquête yëglekaay la ñuy àddu jëmale ak viol bi nga xam ne rek def nañ ko benn patiente ca suma assistance yéen kaay bi ne benn assistant infirmier boo moytuwulee dinañ ko tëj fukki atu kaso réew mi quotidien yokku ca ne fukki at ak ñaari kaso kay boo moytuwulee ñu ko tëj assistant infirmier bii di musa Traoré moom moomee nag ñu koy tuumaal ne dafa yegg ci kaw benn gone gu jigéen goo xam ne rek papaam milliardaire la moom nag da doon sàkk gone gi ba noppi nag di ko filmer juróom-ñaari fan ci weeru mai ci la fas